tay nak ñu ko tambali fi ci zawiya cheikh omar fouti tal bi nga xamne mo nek ci escap urban ci kër ci keur ban mu cerno bashir tal bi ñu déggé no dogo ba nopi nak ñu bayyi ak nga xamne moy def bayan bi inshallah ñu dogo dugg ci ci bala imam dugg ci ñu fatalante ay baat yo xamne dafa jëm ci sunu walu diine tey nag sunu bayaan ñu ngi koy ak ci benn wasiya wasiya ci arab mooy ndénkaan boo xam ni Thierno Hamidou moo ko bind muy wasiya boo xam ni bu ama am solo la te lépp mu teg ko ci alquran ak sunna yenent bi sallallahu alayhi wa sallam muy wasiya bi juróomi mbir la muy juróomi dénkaan yoo xam ne jullit bu ko gànnaayoo sa àdduna dana jag te sa àllaaxira jag te jullit ñaar yooyu rek moo ko séq àdduna ak àllaaxira mu war a góorgóorlu ba àddunaam jag waaye war a góorgóorlu ba àllaaxiraam jag loolu la yàlla wax ci alquran wabtaxi fi ma ataaka allahu daar al waaye wala tansa nasibaka min ad يلا دفني وابتغي فيما اتاك الله دار الاخره للا يالا جخ للا يالا مي نانكي فغول سا الاخره بو نيه سني وابتغي فيما اتاك الله دار الاخره للا يالا جخ فخيل با سا الاخره نتا باخ نتا نيه بو ياكاني علال رك لا ديدي خلمي خل مسلم ويرغي يرامغي def gi la yalla def doomu adama def gi la yàlla def julit xalaat bi nga mën xalaat ak jëf yi ngay mën a jëf doomu adama léppam aw yiw la moo tax bi alayhi salatu wassalam waxoon ni man de yemu naa ci julit mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam ñu ko mo sang bi lu la yéem ci julit yonent bi ni julit moy jëm ji nga xamni léppam yiw la su amé banex yiw la su amé safan moy nattu yiw la قال وابتغ فيما اتاك الله دار الاخره خلني لا يالا جوخ على الجل يالا جوخ خم خم بلا يالا جوخ ويرك يرم جل يالا جوخ لولي ييب نغا سي فاغو بور اولك يوم الخيام ام اد يوم الخيام بو نيه واي يالا تك ني ولا تنسى نصيبك من الدنيا واي بول فات نك ياغي سي ادنا تكو نيك سي ادنا جيف جيفي وا ادنا موي فخيل با سول يري يو رافت سي خيل با ام كيركو باخ fexeel ba am oto bu baax fexeel ba takk soxna yu baax fexeel fexeel fexeel sa àdduna na neex sa àllaaxira neex ndax nitu yàlla yi dañuy wax ni àjjana fii lañ koy tàmbalee fii ci àdduna la ñuy tàmbalee aljana ndax aljana du dara lu dul xel mu neex ak xel mu dal rek mooy aljana loolu rek mooy aljana xel mu dal rek mooy aljana waaye yi am fii yépp benn bu nekk boo demee aljana di nga fekk ya am aljana moo amoon fii doonte ni fi amee bokkul waaye loolu rek la xel mu dal nag soo ko amee ci àdduna jaamu yàlla subhanahu wa taala ni nga ko war a jaamoo nekk ca la nga nekk la la yàlla sant nga def lam la aayee nga bàyyi kooku xel mi day dal da am it mi xal bi li ñuy tuddee xel mu dal xol bu dal looloo tax cierno joxe juróomi wasiye juróomi ndenka ni juróomi ndenka yi muy dénkaane ne mom cierno ne mi ngi jital bopam bu njëkk bi moy ban moy jullit bu nekk na fexe gor gorlu ba am li ñuy tuddee taqwallahi moy ragal yàlla fexe ba ragal yàlla ak taqwallah ragal yàlla سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه ban ko lan mooy ragal yàlla dafa ni imtisaalul awaamiri wajtinaabu nawaahi fi zaahiri wal baatini dafa ni bu ma la bëggoon tënkal ragal yàlla mooy lan moom Seydina Ali dafa ni mooy lépp lu la yàlla sant nga def lépp lu la yàlla tere nga bàyyi nee na loolu mooy ragal yàlla ragal yàlla mooy imtisaalul awaamiri mooy li la yàlla sant nga taxaw ca temm li mu la sant rek nga def ko lim la tere nga bàyyi lépp Seydina Ali ibn Abi Talib nee na loolu mooy ragal yàlla te ragal yàlla nag mooy li nga xam ne mooy jëriñ nit fii mooy jëriñ nit àll àllaaxira gis nga boo bëggee sa àdduna neex na nga ragal yàlla soo ragalee yàlla da dund dund bu neex mag ñi dañuy wax ni ku ragal yàlla lépp daf lay ragal ku ñeme yàlla nag yàlla rek ngay ñeme waaye yow ci sa jëmm dangay ragal ñëpp ngay gis nit day am dal ndax lan ndax ragal gi muy ragal yàlla subhanahu wa taala da gis yenn saa ñu nettali la ni la benn mag ci mag ñi def na loo xam ni bi mu koy def wóor na ne ni lii bakkan xajoon na ci waaye moom ragal gi mu ragal yàlla ak def gi mu koy def pour jaayanteeg yàlla loolu rek doy na ko looloo tax faawu moom daf koy def mu ne na nga ragal yàlla ndax bisa ngi ñëw ci sunu kanam ñu tuddé ko bisu bu mujju ba tuddé ko bisu pénc tuddé ko bisu taxaway ba tuddé ko bisu pay ba tuddé ko bisu tiitaange ba tuddé ko bisu raj raj lo ba muy yowmal khiyamati bis bobu yàlla neena dara du fa jëri nit lu du ragal yàlla yowma la yanfau malun ولا بنون الا من اتى الله bi سليم yàlla nee na bisi ngi ñëw boo xam ne dara du jëriñ doomu aadama lu dul lan koo xam ne dafa indil yàlla xol bu set wécc xol bu set wécc buñ ko waxee mooy xol boo xam ne dara nekku ca woon lu dul yàlla subhaanahu wa taala boroom yàlla la doon jaamu boroom yàlla la bëggoon boroom yàlla la ragaloon boroom yàlla la doon wéetal boroom yàlla la jëloon teg ci kanamam mooy yawma laa yanfau maalun wala banuunun illa man ata allah bi xalbin selil bis boobu ki am alal ju bare alal ja du ko jëriñ dara ku am doom yu bare doom ya du la jëriñ dara lan moo lay jëriñ mooy sa xol bi nga xam ne dafa setoon wécc wécc ci bëgg yàlla jaamu yàlla bañ ko bokkaaleeg dara bañ ko bokkaaleeg lenn loolu mooy ak taqwallah ragal yàlla allahu akbar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 فأما من أعطي واتقي وصدق بالحسن فسنيسره لليسر وأما من بخل وستغني وكذب بالحسن فسنيسره للعسر فما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة ولولي فإن نارا تلظي لا يصلاها إلا لشق الذي كذب وتولي وسيجنب الأشقى الذي يؤتي ماله يتزكي وما لأحد عنده من نعمة تجزي إلا ابتغاء وجه ربه لعلي ولا سوف يرضي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 ما ودعك ربك وما قلي وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي لم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث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 السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله مبرومي شرنا نينا قناو سنتي الله جلت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم nee képp ku fi teew Ceerno nee na ñu ngi lay nuyu nuyu lislaam mooy baatu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mu ngi ñaan yàlla tabaaraka wa taala li yàlla ëmb ci biir baat boobu yàlla nañ ko yàlla boole defal mooy mucc bi bàyyeekoo ci suñu borom bi subhaanahu wa ta'ala ak yërmande gi bàyyeekoo ci suñu borom bi subhaanahu wa ta'ala ak barke gu sax bu bàyyeekoo ci suñu borom bi subhaanahu wa ta'ala yal nañ ko yàlla boole defal ceerno nee na mu ngi ñuy ziyaara ziyaara cofeel ziyaara bëgg ziyaara mbokk ci bisu aljuma ji nee na mu ngi ñaan yàlla tabaaraka wa taala yal nañu yàlla boole nangul suñu mboolem jaamu yàlla yi mboolem suñuy bàkkaar mu ngi ñaan yàlla tabaaraka wa taala yal nañ ko yàlla boole jéggal li yàlla ëmb ci biir ziyaara mu ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala yal nañ ko yàlla boole defal nee na baatu ziyaara juróomi lettre moo ci nekk benn bu ne am na lu muy wund loo xam ne mbaax boo xam ne du jeex na nee na juróom lettre yooyu juróom baat yooyu benn bu ne insha allahu dana danañu wax mbaax ak mayu yàlla tabaraka wa taala yu dul jeex yu nekk ci baat yooyu nee na zaabi bu njëkk bi mooy yokkute suñu diggante ak suñu borom bi subhanahu wa taala mu ngi ñaan yàlla yàlla nañu yàlla dolli ci boppam yàlla dolli ñu it ci suñu biir mooy wér ak kàttan ak kaaraange suñu borom bi subhanahu wa taala yàlla dollil ñu suñuy wërsëg waaye it yàlla guddal suñuy fan yàlla dolli ñu ci ay suturaam mu ngi ñaan yàlla moom ceerno yàlla nañu yàlla defal loolu nee na yaa bi mooy yusru mooy jàppandal mu ngi ñaan yàlla tabaaraka wa taala yal nañu yàlla yombalal suñuy mbir nee na li gën a jafe ci mbir yi mooy jaamu yàlla mu ngi ñaan yàlla tabaaraka wa taala yal nañu yàlla yombalal ni ñu koy jaamoo mu ngi ñaan yàlla yit mboolem li ñu jaamu yàlla yal nañ ko yàlla nangul bijaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa alif bi mooy ulfa mooy miinante bi jullit yi di miinante seen biir en ñaagima allah subhanahu wa taala yo ɓerɗe men xol ñu miinante ci bëgg yàlla miinante ngir jëmmi yàlla miinante it ngir ànd ngir jëmmi yàlla ko rahmatu won yurmede allah nde kalnuɗen joni nde yo allah waɗana en ɗum nder waɗana e en moy yurmande suñu borom bi subhanahu wa bi mo waxoon léegi mu ngi ñaan yàlla moom ceerno yal nañu yàlla defal yurmande googu ci suñu biir ak suñu biti ko hidayatu ila sirat almustaqim yo allahu fewnu en e lawol poccingol enen e ɓesguji men e ɓesguji ɓesguji men ha ila yawm alqiyamata nena haabi moye hidayatu ila siratin mustaqimin mu ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala yal nañu yàlla jubal teg ñu ci yoonam gu jub xocc ba ila yawmi yubaasuuna enen e ɓesguji meɗen e ɓesguji ɓesguji ha ila yawm ñun ak suñuy njaboot ak suñuy njabooti njaboot ak suñuy sëtaati sët ba ilaa yawmi yubaasuuna caggalum noon mbiɗa yettina salminaandu jinnaɗo meɗen ceerno meɗen ceerno bachir muntaga taha eh, cheikh umar radiallahu taala anhu ceerno nee na gannaaw loolu nag mu ngi jottali nuyoo ak ziyaara wayjuram di suñu wayjur xaritam di suñu xarit di ceerno mouhamadul bachiru mi nga xam ne mom moy khalifa cheikh al alxaaja umar al futi radiyallahu taala anhu cierno nee ñun ñépp nañu xamne cierno ceerno bashir mu ngi ñuy nuyu di ñu ziyara omo juro on omo duono on omo ñagi on duaw mu ngi ñuy nuyu di ñu ziyara di ñu ñaanal waye it mu ngi sak ci mbolo mi ñu ñaanal ko mom cierno ceerno omo no en allah kala do mbaɗɗen allahu akbar su en rewbe su en rewabe su farida su nafil fu fof yo allah jaɓanen Ceerno nee na Ceerno Mouhamadul Bachiru mu ngi ñuy ñaanal yàlla saa yi ñu yëkkatee suñuy loxo jàkkaarloog yàlla ne allahu akbar moo xam ne ay imaam lañu mbaa ñu nekk ay maamum ñuy julli julli farata mbaa ñuy julli julli naafila yàlla ñu yàlla nangul suñu jaamu yàlla yooyu kala ɗum mbiɗen allahumma so tawi ko enen koye meɗen kuccinɗum e koye meɗen walla kuccinɗen e goɗɗo taw ko allahumma mo ganduɗa dewɗo allah jokki en ɗam yo allah jaboɗen nena yi ceerno bachiru mu ngi ñuy ñaanal fu ñu mun ta wax allahumma allahumma boobu moo xam ngir suñuy jëmmi bopp la mbaa déedéet dafa am ñiñ koy ñaanal mu ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala yal nañu yàlla nangul allahumma boobu waaye nag na fekk allahumma bi day jokku mbokk amuñaa ko ne leggal leydi men waɗana en jaam e leydi meɗen waɗana en jaam e dendagal leyɗele julɓe fof ne mbawi wonde ceerno nee na ba tey ceerno mouhamadoul bachiru mu ngi ñuy ñaanal jàmm ci suñuy biir i kër ñaanal ñu jàmm ci suñu biir réew mii waaye di ñaanal jàmm mboolem réew jullit yi fu ñu munta nekk ci kaw suuf mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñi faral di seetaan seen euh, si internet bu mag bi Allo Dakar TV xam ngeen ni boobu ba léegi yéen a ngi seetaan li nga xam ne mooy band annonce bi muy seen émission bu mag bi ñu tuddee Jumaa Mubarak tey nag ñuy ñëw fii ci Scat Urbam ci jumaa ji nga xam ni moo fi nekk muy jumaa ji nga xam ne mooy Thierno Hamidou baan jumaa ji nag bi ñu fi ñëwee tey mooy première émission fi lañ ko njëkk a defee bi ngeen dégloo bayaan bi ba noppi déglu xutba bi nga xam ne moom la imaam doon def bi ñu noppee def nañ julli gi. ñi ñu toogoon nag ñi ñoo yor commission bi nga xam ni mooy wàll ñoo yor wàllu jumaa bi te jumaa ji di zawiya Cheikh Omar Foutiyou ñi ngi toog nag ak imam bi nii muy euh, imam ñu toog moom nii sama wàllu càmmoñ sama wàllu ndeyjoor mooy ki nga xam ni moo topp ci imam bi ñi ngi nekk tamit nag waa commission bi yëpp ki ñuy jël kàddu di ko jox ci moom mooy Serigne Makan Guissé muy président commission Zawiya Cheikh Omar Fouti taal buñ ci noppee daañu jël kàddu gi jox ko ki nga xam ni mooy El Hadji Samba Ndiaye moom mooy deuxième imam bi nga xam ni mooy imaamu mosquée Zawiya Cheikh Omar Fouti taal su ko defee ñoom ñëpp kenn ku ci nekk nag ñu jox la kàddu nga wax ñu nan la jumaa ji tëre ak nan la jumaa ji di tëdde suñu noppee ñu bàyyi leen nag ak euh, sëriñ Makan Gise sëriñ Makan bisimilah. bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu ñi ngi nuyu ñi nekk si jataay bi yëpp di leen ziar di nuyu si imam ratib ak membre commission bi fi nekk yëpp. Zawiya euh, Cheikh Omar Foutiyou Tall bii ñu toog tey euh, ñun ñu nga xam ne tey ñoo yore commission bi ñu ko yore si ndigalu Thierno Amirou Bane. ndax ñun ñi ngi dëkk ci koñ bi ci cité yi nga xam ne ñoo wër koñ bi ñun ñoo dajaloo ñëw gis xam Thierno du baam ñaan ko zawiya bii di zawiya Cheikh Oumar Foutiyou taal dañ bëggoon mu nekk juma ban ko ko ñaanee wax dëgg yàlla moom itam mu nangu loola ñun ñu ngi ñoo xam ne moom lañu ko ñaan ndax itam ab zawiya nekk juma ñépp xam nañ ne ay xéewal rek lay doon

itam ñu ñu organiser wu de façon que lépp loo xam ne jumaa ji war na ko yëkkati koñ bi nga xam ne fi la koñ yi nga xam ne ñoo wër jumaa ji ñoo si njëkk a taxaw ñoo njëkk a ñëw jàpp si balaa see keneen di jàpp. loolu la ci ñu koy rafetlu parce loolu yépp si mbaaxu Thierno Hamidou Bane la ndax suñu jiitul toon tabax ko ba mu mel ni mu mel mu jiital ñu si kon duñ si gis suñu bopp waaye koñ bi koñ yi wër jumaa ji yëpp. muy Sicap muy Sicap Urbam muy amoo Grand Yoff muy cité Fajarol koñ yëpp doon organisé wu taxaw jumaa ji di si jàpp guddeeg bëccëg lépp lu njëkkati ñoo si njëkk a def seen loxo jumaa ji tàllalgul kenn loxo lépp lu fi am Cerno Amidou moo ko fi moo moo moo ko fi def ak waa koñ bi nga xam ne tey ñoo ko wër lii nga xam ne nag mooy événement bi nga xam ne tey moo ñu fi indi ñu koy def at mu nekk itam day ngëneel si quartier bi parce que ab quartier boo xam ne quartier yu bari yu wër fii yëpp te amul benn juma loola du lu gën ay jullit fu nekk war nañ dégg baatu Allahu bari mu fay jib ndax loola su fa amul rek daanaka daf mel ne koñ bi koñ bu dee la kon loolu ñu ngi koy gërëmee corno ah eh, macha allah événement bi nga xam ne mooy am ñu koy def at mu nekk te corno Bachir ñëw di ko taxawee day sagal koñ bi day yëkkati daraja koñ bi. Eh, ñaan yi fi ñaan yëpp yàlla na ko yàlla nangu. jërëjëf ñaan bu ñu fi ñaan yàlla na ko yàlla nangu kooku nag ki ko doon wax léegi mooy euh, le président commission zawiya Cheikh Omar Foutiyou Tall dégg ngeen li mu wax nee na zawiya bi ñoom ñoo waa koñ bi ñoo dajaloo dem ci imam ni ko dañoo bëgg ñu def ko juma ci ndigalu imam ak baaxam yàlla dogal lépp nag imam moo ko def ànd koog waa koñ bi yëpp ñu def ko juma tey nag bu ngeen gisee ñu ñëw fii. muy première émission bi ñëw ubbi si ko fii mu tombeek nag Thierno Bachir war fee ñëw ak ak ngan goo xam ne at mu jot Thierno Hamidou da koy def kàddu gi nag ñu ngi ko jël di ko jox ki nga xamante mooy alxaaji Samba Ndiaye mu topp ci imam ratib mi mi nga xam ne moo nekk fii ci jumaa ji imam li lay njëkk laaj mooy gannaaw bi la sante nuyu la ba noppi mooy est-ce que jumaa ji biñ ko gannaaw bi ñu ko defee jumaa ba noppi bëgg nañu xam jumaa ji ni muy doxee ak yenn difficulté nga xam ni ji dina ko am ak euh, taxawaay bi nga xamante si ku bëgg a ñëw taxaw ci taxaw ti ci wa financièrement wala nga ñëw bëgg a ñëw am loo mën a apporter ci jumaa ji yooyu lañ la bëggoon laaj nga wax ci sa xalaat. salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam. gannaaw bu ñu musoo ci cheytaan di sant sunu borom tubax subhaanahu wa di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa ñoo ngi nuyu mbokk. téléspectateurs yi di nuyu ñi nu seqal jotaay bi yëpp ku nekk sa tur ak si sant di ñaan yàlla yàlla ñu defal lépp lu nu fi yëkkati mu nekk lu nga xam ni dana jëriñ te bépp safaan yàlla sorel nu ko bi na nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ah laaj bi nga laaj nag fi zawiya la daara la jumaa la lépp lu ñuy def ci zawiya ñoo ngi ko fi taxawee mooy di leen fi zikr di leen fi lazim di leen fi wazifa di leen fi asru jumaa daara la di leen fi def di leen fi njàng am na njàngum xale am na njàngum mag waaw ndaxte jamono bi alhamdulilahi rabbil alamin Nyang, xawon na tumranke wante sha allah bi cerno taxawalee li xalé yang ci si mag ñi ñong ci si benen bi moy juma la jàkka la juma la ñong fi julli juróomi waxtu yi ci njital imam yi ñong fi julli jumaa aljuma bu nekk macha allah ñu koy defe comme ni ko mag ñi daan defe bu waxtu wi jotee dañu ñu noddu dinañu bayaan ci làkk bi lu am solo la dinañu bayaan ci làkk bi ñuy ëpp dégg ñu wax xew-xewu jamono bi delloo ñu seen borom bu bu nu noppee imaam ñëw xutba xutba ci la si lu al arabiya mu paree ñu julli sunu paree ñu doxaat beneen ndénkaane noonu lañ koy defee comme ni nin ko defee léegi jumaa nag alhamdulilah boo gisee jumaa ji nu mu ni mu mel ak ni ko président waxee am na organisation euh, ci kaw organisation boobu soo gisee fii nu mu mel comme ni mu ko waxee nga xam ne imaam moo tabax mbir mi waaw imaam moo ko tabax yalwaaniwul kenn jëlul billet joxe kenn jëlul carnet joxe kenn yéeniwul si rajo macha allah fa tabarakallahu ahsana xaaliqin imaam moom moo def loolu dëkkandoo yi jàppale ko ci comme ni ko ñu waxe léegi jumaa nag ñëpp xam na ni courant moo fay am ndox waaw courant ndox ak yi mu ajo ak yi ci ajo nit ñi di ñew di laaj ak yoy yeb mo ci adjo donc li juma yi di lepp lu juma di ajo juma ji ajo nako benen beneen lu ma bëggoon dolli moy ka xam nga ni juma ji xatna fi mu nek juma ji xatna amna nu projet yakali juma ji waaw yakali juma ji ndaxte jigéen ñi macha allah nañu ñuy ñuy julli te waroom it war nañu am seen bërëb bu ñuy jullee donc loolu loolu yëpp nekk na sunu mbëbët fi mu nekk nii ci loolu lanu taxaw pour yàkkale jumaa ji loolu mooy liggéey bi kon nag fii fii sabilillahi moo fi am fii li fi am mooy doxal sunna ak sharia waaw jaare ko ci njàngale mag ñi kon nag képp ku fi mën a ñëw def ngir yàlla comme ni ko imaam di waxe sunu njiit Ceerno Hamidou Bane wa maa umiru illa li yaabudu llaha muxlisina lahu diin waaw lépp lu nit di def naka defe ngir yàlla te mu sell donc fii ñaanunu wante ku indi ngir jëmmi sunu borom ngir def diine ngir def fi sabilillah ah kooku ñoo ngi lay dalal ñoo ngi lay yaatal ndax fii amunu frontière waaw fii annal masjida lillahi annal masjida ah wa allahi ahadan donc fii yàlla moom leen fiy wax waaw yàlla moom leen fiy wax donc amuñu frontière képp ku mën a ñëw dimbal jàpp si ngir yàlla kooku ñoo ngi koy wax bismillah bismillah bismillah ah cerno Alhaji sam Ndiaye bu ngeen ko de bu ngeen dege kàddu li tax nak emission bi tax mu tax mu jog li rek la demee de ngeen limu wax ni kii nak mom moy deuxième imam bi waye kii ma del la sama càmmoñ moy cerno ibrahim Allah momon mon imam ratib bi nek fi ci ndigalu cerno Amidou ban juma nak mi ngi noonu negu yalla la yen ñi dëkk ci gox bi yéen ñi dëkk ci réew mi xam ni jumaa jii de zawiya la laataa muy nekk jumaa waa koñ bi muy Scat Urbam fii mu nekk ñoom ñoo jóg àndandoo ñëw ci imam ci Thierno Hamidou ni ko dañoo bëgg nga defal ñu ko ñu def ko jumaa ba yàlla dogal tey ji ñu def ko jumaa waaye nag lépp lu ñuy doxal ci zawiya ñi ngi koy doxal fii lépp lu ñuy def ci jumaa it ñi koy def ci jumaa fii wa imaam léegi wax na ko nii néegu yàlla la tàllalu ñuy kenn nag suñu ay loxo ñëw ni wala ñuy yalwaan waaye néegu yàlla ku ne xam na ni jullit bu nekk am nga ci wàll képp koo xam ne yàlla dogal na nga dëkk ci gox bi wala lu lu ko jege te yàlla may la teraanga nga war koo mën a def ci néegu yàlla bi soo ñëwee boo ko fi indee daañ ko jël defal la ko fi xam ne néegu yàlla lu ci waay def rek sa bopp nga ko defal ki leen doon présenté ne émission bi mooy Assane Gawlo Mboup ci seen site internet bu mag bi mooy Allo Dakar TV international ñu ñëw nag di siyaare bu baax a baax Thierno Amidou Baan mu Thierno Bachir Munta mu Thierno Bachir Tall di xalif général omarien fii ci zawiya Cheikh Oumar Foutiyou ci jumaa ji nga xam moo nekk Espace Urbam ñu leen di jox dig daje beneen yoon ak beneen émission jërë ngeen jëf